gaa yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax euh, boo leen gisee nag ñu ñëw ci suba si nii comme niñ koy defee toujours euh, yenn saa yi ñu dat ci ay vidéo yoo xam ne ay doomu aadama lañu yoo xam ne dañoo bokk ci régime bi te bu ñu dajeeg ñoom toujours comme niñ koy defee dañuy nelawal xelu doomu aadama yi pour rappeler aujourd'hui déjà tey la match Sénégal Algérie tey la à dix neuf stade Abdoulaye Wade xale patriote yeen ñep ñu leen di wo pour ngeen dem fa def li war li war muy lan muy ngeen sonkoriser ko il faut savoir que li ñuy bëgg dugal ci suñu xel yi ak li nga xam mom moy réalité ñaari affaire yu différent ya la réalité et ya le banditisme d'État té ñom ci banditisme d'État la ñuy dox dama bëgg sénégalais yi di xam loolu ci seen biir bop yi voilà légui dama bëgg insha allah allahu rabbi sénégalais yépp képp ku ko man nga nekk ci biir stade nga nekk ci biti stade yen ñëpp ngeen dem wutali stade Abdoulaye wad pour yëgal Macky Sall ne constitution Sénégal moñu may droit de manifester du bayam moko moñu ko may wala ndayam wala ñom wa APR du ñoom ñooñu ko valider donc suñu ko bañalee nañu dem ñu def ko ni nga xam ne noonu la waree tey nag mën naa ne gis naa ñaari vidéo ci suba yoo xam ne dañ ma intrigué benn bi coon ñaa la suñu frère dégg naa ko ci euh, benn émission ak Astu Njoon ndeysaan dafa mel ni ni ñuy waxee dëgg yi nee na moo ko naqari maanaam dëgg yi neex na ko nee na démocratie la waaye niñ koy génnee nee na looloo ko naqari ñu bëgg ko yëgal rek ne coon ñu nit dëgg yooyu boo gisee ñu koy génnee noonu du noonu la ñu neexee waaye par exemple somebody like me quelqu'un comme moi qui a une famille je me chaque matin pour aller comme nous koy fait dépense pour nourrir ma petite famille et quand j'allume ma télévision je regarde mon pays le Sénégal Il y a des familles que nous nous, nous nous, nous, nous, nous, nous, nous, ndax nous, am nous, nous, nous, nous, nous, dañuy nous, am nous, am am ay malik diko indi sen bir kër yi diko lek lolu mo am sénégal pendant ce temps là ñu gis ay politiciens ci même réew momu nañu né ay fonctionnaires d'état ay fonctionnaires yo xamné tay sen salaire dafa waron don 1 million voire 2 millions voire 3 millions voire sax 4 millions ba 5 millions de francs CFA tay kenn ku nek ci ñooñu multimilliardaire là il se billionaire ci réew moo xam ne ñun ñëpp xam nañu ne réew senegal presque cinquante pour cent chômage la am cinquante pour cent chômage nit nu mu soxor soxor soxor wala lu mu bon bon bon bon bon war naa xalaat ne soxlawul sàcc mille milliards pour dund réew senegal ki ko jiite kan la Macky la Macky Sall lan la agrégé nee nañu ingénieur géologue la géologue moo taxit won nañu ko biñ ko njëkkee fan lan la njëkk def ci mbirum pétrole bi la dem bind ci ay contrat yu méngoowul ak yoon est-ce que yéen xam ngeen déjà band yi nga xam ne ñoom lañu jiital ci suñu réew mi ba ñu faloo ci réew mi ba léegi ñaata milliards la ñu détourné li ñu détourné ci ay milliards waxuma la njariñ leen njariñu leen dara parce que alalu sàcc la plupart du la njariñ dara barki démb rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn xarit mu may won ne que tous ces milliardaires qu'on au Sénégal tey kenn ci ñoom yorul saala yaay ndeer ils son tous des pauvres parce que milliards yi ñu détourné la plupart des temps dañ koy yóbbu ci ay paradis fiscaux yoo xam ne duñ ko ñemee jëfandikoo wala li ci des akas néew buñ ko jëlee ñu ngi koy jéem a jëndee nit kii ñu ngi koy jéem a jëndee nit kale ñu ngi koy jéem a tëddee bi ñu ngi koy jéem a tëddee xale ñu ngi koy jéem a jëndee kër gu illégal gi ñu ngi koy jéem a jëndee kër gu illégal gale en fin de compte duñu deseeti dërëm lii mooy senegal donc mon frère Thione boo gisee suñu xool yi di yéeg ñuy waxee ci yenn méthodes yi is because we fed up. We are fed up. We are sick and tired of politicians that steal all of our natural resources and all of the funds that are due to take care of our population, dedicated to take care of our population, are still stolen by a very few. ngeen di gis xol bu metti yi ci ñun ñu bari nyubagela waxé ñu bëgg la attribuer iñaan wala xolam mo nakari of course sama xol dafa nakari. parce que lan mo naqaral sama xol ñu jël la ñu dénk la bankasu ab réew ngay doomu doolo doomu gerte sa bay doon gardien di dag ay fleur manam Sénégal jox la opportunité aduna yépp ñu dénk la ab réew dénk la suñu doole la suñu lépp nga jël ko diko utiliser contre ñun loolu mooy baadoolo loolu mooy siiñu baadoolo vrai mooy nga ñëw kër jàmbur ñu tegal la ndab nga ñiit ko loolu mooy baadoolo buñ la invité ci ndab kër jàmbur bul mujj ci ndab li bay ñiit ndab li loolu siiñu baadoolo la kooku mooy président de la république bi ñu am ci réew mi te beneen affaire ma koy waxaat coon the truth shall set you mënuloo ñëw ci ab dëkk coon te ñun ñu xamante ñun ñëpp ñu dëkk Amérique nag wax dëgg yàlla amuloo fi diplôme bu ñu amul Amérique li fi am ñun ñëpp xam nañ ko ah. am na fi ay online classes yoo xam ne nit ñi mën nañ koo jël liggéey fii tuuti liggéey fële tuuti jëlee fa benn diplôme kenn ku nekk nag mën ngaa bindee sa biographie nu mu la neexee nga ne sa maam moo tabaxoon géeju ndaayaan sa maam moo indi woon Thiès jëlee ko cees yóbbu ko Dakar sa maam moo tabax àdduna bi sa maam moo wàccee asamaan si ci suuf si loolu yëpp kenn ku nekk ci ñun mën na ko wax comme biographie. am a self made millionaire self made man kenn ku nekk. mën naa wax lu ko neex ndax àdduna bi tey noonu la bindoo waaye dañ leen bëgg a yëgal rek ne coon yaa ngi ci dëkk injustice di fa dox ñu rey sa doomu Sénégal yi they killing your kids they killing your brothers they locking them up pourquoi ngeen ne pat te waxu leen dara yéen ñëpp ngeen toog ci dëkk boobu ay complices ngeen vous êtes des complices you can't sit dude man je respecte I respect success mais li ma respecté wul yow keroog biñ la xañee visa amul loo yekkul waa Canada xawma wala my visas nangam my visas nangam John your country has 18 million citizens they are being killed and persecuted Nous ngi di arrêter even le plus les les droits les plus fondamentaux le droit de se manifester the freedom of speech the freedom of expression Lila que may yow tey doole ba nga mën a ñëw Amérique ak Japon ak fépp la liberté d'expression John, Macky Sall yor ay nit ci dëkk ne kenn lu wax mu ne wax mu japp la le seul crime qu'un de tes frères Ousmane Sonko a commis c'est d'être honnête c'est quelqu'un qui ne vole pas quelqu'un qui ne détourne pas quelqu'un qui ne fait de mal man kii faraluma ko parce que taaram faraluma ko parce que lu muy joxe parce que amul lu mu jox nit kii li ma koy faral mooy li ma farale woon Assane Diouf injustice bu ñuy teg ci kaw doomu aadama te ma xam ne nag doom ju baaxa ngi nii doom joo xam ne tey buñ ko joxoon réew mii ay loxoom set na dina ko teg ci yoon bu jub lii we just angry we angry because the people who have voices don't speak up You tey sa benn kaddu sa benn conférence mënoon naa changer lu bari ci Sénégal How waaye xam nga lan nga ko décider def conférence yooyu pour sa poche for your pockets instead of talking for the Senegalese population you're talking for Thione xam nga lan mooy différence su man ak activiste yu bari wala man ak sénégalais yu bari ngeen jéggal ma du puukare du tiitar coon dama judd ci lu rëy fekk lu rëy gis sama baay di def lu rëy donc lu rëy rek laa mën a def lii du tiitar nee naa leen man dama am fit li may wax adduna bi yëpp a ngi koy déglu senegal yëpp koy déglu boo ko waxee am ñu réew ñoo xam ne dañuy génn rek di saboté wala di kokkoli waaye mënuñoo indi preuve man bi may judd sama baay milliardaire la alaaji Hamadi Kànge la tudd alaaji Hamadi Tunkara waaye ba léegi benn doomam jëlu ko puukareel ko dafa jël doomam yi yëpp wàccee leen sur terre ñu tolloog doomu aadama yépp bu ñu gisee ku sonn ñu dimbali la bu ñu gisee ku ñu war a mën a dimbali ñu jàppale la bu ñu gisee ku ñuy won yoon ñu yoon la bu ñu gisee ku ñuy tere ñu tere la defe naa loolu xëy na mooy différence bi doomu jaaykatu caaf bi ak doomu daggkatu fleur bi moo réew tey ci Sénégal man doomu ancien milliardaire bi bu ma waxee ñu ne ma pourquoi ngay wax Macky sàll yàllaa ko fi teg yàlla yàlla yàlla béy sa tool dañ ko dénk ab réew dañ ko fal teg comme président dañ ko woteel teg ko fa waaye dañ ko ne mu doxal ci suñu ay charte réew ci kaw suñu réew nu muy doxee kenn judduwul nag ci àdduna rek mu sotti with time everything work itself out waxuma lii pour ne man maa gën keneen déedéet dama wax lii ma ne xëy na loolu moo def jom ci man xëy na loolu moo tax man mënuma seetaan ñuy torturer ay doomu jàmbur ñuy manipuler ab réew ñuy sàcc suñu alal ma ne pat loolu man mënuma ko parce que man judduwuma ci loolu man ci amour laa juddu man dama juddu fekk saa baay bu ñuy teg nit injustice mu baare ko yoon ba bi muy génn àddina boo tooñee doomu aadama sama baay day génn xeex ak yow ne du loolu bàyyil nit kii mu nekk ci jàmm même bu dee doomam nga nag nga tooñ day dal sa kaw ñun am nañu ay injustice partout dans le monde on a des injustices partout dans le monde nag partout waaye bu senegal dafa jaggi dayoo parce que Macky Sall li mu nekkee xam ngeen ne du dëgg du yoon te ku ko waxul waxuloo dëgg ngeen bëgg a xool ay fen yu tooy kat ngeen bët ko jël defal ñuko deug c'est pas vrai voilà wallahi c'est pas vrai justifiez wu ma frère euh, Gana Cécile Sow je ne me justifie pas defuma lolu mais damay won ñen ñi né c'est de la lâcheté nga bok ci ab population nga bok ci ab réew ay doomu adama yu wul dara ñew japp réew momu en otage yow nga nopi ne pat je mettrai tout mon énergie tout mon argent tout ce que j'aurai pour libérer mon peuple billahi wallahi tallahi lazim buma ma amatul lu ma lekk suba sax dina xex té lolu moy dëgg Sénégal ñun dañu bëgg mu changer on veut que non notre pays change mel ni Amérique Amérique ñun ñoo leen ëpp ressource ëpp ko France ëpp ko Europe yëpp waaye ba léegi ñun ñu ngi ci njaam ñu ngi ci buumu njaam pourquoi demandez-vous la question puukarewu ma de gis nga ni ma tuutee nii boo ma yee woon tey nit kuy jaay gerte mën na maa yee New York ne ma damaa ami problème ma dem bàyyi li may def ma dem toog waxtaan ak moom xool lan laa ci mën a def dafewuma ken gën na ken ndax ci kanamu yalla ki gën ñep moy ki nga xamne mom moy doxal yoonu yalla donc peut-être man ci ñi yàlla gën a ci aduna bi la bok peut-être mais on peut vous dire que Chon, vous faites partie de la société sénégalaise parlez la vérité aux Sénégalais ñi nek ci kaw comme am ngeen voix dites la vérité bu leen xool sen intérêt bu leen mel yousou Ndour bu leen mel ni yuuxu maa jigéen luur xool ay intérêt rek topp ci moom au moins c'est un griot c'est ce qu'il toujours fait comme mbay peex ñoom toujours loolu la ñuy def dañuy xool nguur gu fi ñëw ñu ànd ak yow yow yaa xaalis bi ñu woyal la say maam samba mbayam ñoom loolu mooy seen métier mais ñun doomu gor piir yi waruñoo nangu loolu comme métier dañu wara xex donc lolu vidéo bima ma dégg ci coon mom la ko attribuer té coon maa ngi lay sante di la gërëm parce que peut-être tay jangal nga ma loo xam ne am ci mëna jëlé mais aussi peut-être mën naa laa tontu tontu bi té nga comprendre ko té bañ ko jëlé xol té nga jëlé ko xel té buma ma jot inshallah allahu rabbi je vais t'appeler en personne et je te dirai de joindre la la libération du Sénégal Dina la personnellement ndax la et je te dirai de joindre cette libération gis nga li liberté gis nga révolution bi ku ko joindrul jour dina ñëw di nga parce que li mon moi don li mujj ci Sénégal dëgg rek mooy mujj billahi wallahi tallahi lazim man koy yalla ci yàlla dëgg moo njëkkate moom te rabbi les patriotes ne lâchez pas on sera victorieux ne lâchez pas hein parce que les patriotes du Mali s'ils avaient s'ils avaient lâché si les patriotes du Niger avaient lâché si les patriotes de de de euh, de la du Burkina avaient lâché si les patriotes de la Guinée avaient lâché donc Sénégal bu ñu bëggee am dëgg nañu continuer xeex nañu continuer xeex am na benn groupe délinquant boo leen dégloo ñoom ñoo yor tele yi ñoom ñoo yor rajo yi ñoom ñooy fay mythomane yi ñoom ñooy fay mercenaires yi ma ne leen télé yi nekk Sénégal nii tey ngeen koy xam muy Seneweb di leeral ak lëndëmal ak ñoomin seen ñooñu yëpp il travaille pour un gouvernement c'est des mercenaires de la plume et du micro. C'est des employés. 80% gouvernement Sénégal est illégal. 80%. 80% of them work for the Senegalese government 80%. ils sont tous corrompus c'est des corrompus donc ñun nous voulons changer au monde, nous devons regarder les patriotes xool ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo mën a changer réew moomu ñu fal leen ci kaw réew moomu teg ko ci dëgg na résistance lu baax la ci ab réew résistance mooy dagg buumu njaam résistance moom mooy tekkiloo réew résistance mooy avancé loo réew ginnaaw loolu nag dama dégg benn vidéo benn soxna bu naafeq dissolution de Pastef l'analyse de Ndeye Fatou Ndiaye Sen TV ngeen dégg naa fekk bi de ngeen dégg ay waxam xam ngeen li mu wax ma gàttalal leen ko nee na li xew Brésil dañ ko attribuer ki nga xam ne moom moo doon opposant bi d'accord nee na li xew Amérique aussi dañ ko attribuer Donald Trump d'accord mais dama bëgg a xam pour ndaw si wax ñu li xew Brésil ak li xew Amérique lan mooy association ak li xew Sénégal parce que li xew Sénégal benn doomu aadama mu tudd Ousmane Sonko moom rek la ñu xam ci ay institution sénégalais nit koo xam ne mi ngi laaj nguur gi te mu ñemee toog wax patrimoine am ba pare nag taxaw ne musuma sàcc dërëmu réew mi ndax réew moom boo xasee ba sàcc les fonds publics rek

soxna ndey Fatou sen keur ratch sa gat gi comme yow tok sen keur yi baña wax dara bàyyi Macky Sall mu len di maltraiter comme les tiagat du micro comme yow ak say morom yow xam nga ne wax yi ngeen di wax yëpp intérêt mo len koy lo wax yi yen waxu len ko parce que da ngeen gëm rew mi dedet da ngeen koy wax parce que vous êtes des mercenaires yow mi tay xam nga ne kàddu yi nga yëkëti ni yëpp wax ko ludul sos ak fenn ak yàq dara taxu la ko wax nañu demandoo déglu suñu sër Ndeye Fatou ñoo toog. xam la muy laaj. Hmm. ak la muy soxla ak opposant soxla. soxla ci bu ci tollee. tout à fait. mu daal man hmm. dir na ma ba muy def résistance. c'était pas pour la violence. lay taala ak suñu intime conviction analyser ko. Hmm. pour la dissolution de Pastef. Pastef récépissé mu ngi ko wutee ministère de l'intérieur. kon ministère um de l' intérieur am na sañu tas parti donc foofu illégalité mu luñ ko fa wax parce que fa nga ko jëlee woon fa lañ la ko mën a nangulee muy um benn mbir pour précision on parle président Macky Sall. ça c'est du mensonge dama leen di wax dama leen di wax ndaw si li wax nii fen la parce que man mii di tey di Ousmane Tounkara ñun ñëpp ministère de l' intérieur dem wuti lii nga xam ne moom comme ni ko waxee euh, récépissé parti politique Légui, dama bëgg a laaj sénégalais donc ñun tay en tant que fils digne du Sénégal man man na dem tey juddu Sénégal ñu déclaré ma en tant que doomu sénégalais ci ab mairie bi ma wala préfecture ñu dem ñu jox ma sama donc si je comprends bien cette cette cette macabre menteuse donc même mairie ou wala préfecture bobu man na jékki-jékki rek né Ousmane Tounkara nekkatul doomu Sénégal mais ça c'est de la manipulation li lañu tuddé manipulation des masses parce que mom xamna lèr na ko ab yalla né waaw ministère de l'intérieur ngay dem enregistré ou pour wut récépissé parti politique waaye dafa am ay qualification yoo xam ne ñoom ñoo lay qualifié pour nga mën a am récépissé boobu te disqualification yooyu bis boo ko disqualifié dafa am ay charte yoo xam ne yooyu mooy ne ñoom capable nañu annoncé ne mën nañoo tas mais dafa am ay recours yoo xam ne war nga ko mën a jaar pour continuer encore une fois li nga xam ne moom mooy recours yi nga war a jaar yépp bu recours yep yëpp exorcé te nga nekk ci état de droit bu boba rek ci la ñuy mën tas sa parti te benen affaire encore ñu ngi leen koy toujours il faut que ñu xam ministère de l'intérieur du ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur c'est ministère de la xam nga tey bu fekkee ne bànqaasu réew dañ leen ñuy dox ci ak ci ñeek ak terang ak ci ñeek ak normalité ni kon ben doomu aadama tay du am wax wala yëkëti kalaama di débattre wala di contester ay décision bànqaas yoy ñak jom yi dem ministre di leen tëdde di leen fay xaliss di leen jox xaliss doomu kharam yi yor sen lamine bi nekk ay mercenaires di duula ka dajale toog ci télé yi di fen defoon nañ ko fa fële ci TFM ma tudd fi ndaw si turam jëkkër ja fase ko mu ne daf may porter plainte waaye waxoon nañ leen ko nee nañu leen seen cagatu bi ngeen nekkee ci ministère yi xam nañ ko seen cagatu bii ngeen nekkee yéen journalistes yi ci ëpp waxuñu ñëpp nag ndax xam nañ ci ñu bari yoo xam ne jub nañu xocc waaye xam nañ ci ñu bari yoo xam ne yen promotion de canapé ngeen di def dangeen yor seen seen seen yooyu di dugg ci bureau yi di ko jaay ba pare ngeen bëgg a ñëw ci ci télé yi di ñu ko gëmloo ñun non non non allez vous vendre les culs mais la seenu en yow xam nga ne yii ngay wax ni yëpp ay dul yaa ngi koy wax di xikkat di noyyi kenn xamul li ngay noyyi lan la noyyi bi sax day kale tu nous emmerdes yan ay Aïssata Diop Fall yi nga xam ne amuñu Aïssata Diop Fall moom sax moom mën ñoo comprendre son cas ndax moom njëkkër ji daa AVC moom xëy na ñamul li war ci moom pendant des années ndax moom njëkkër ji daa AVC le mari euh, dafa AVC te dégg naa ndeysaan euh, naqar bi ngeen di gis muy def xam nga ñu bari xamuñu ngeen baal ma waxi ci ci waxin bi euh, wuti leen jëkkër nag ndax waxuma ko pour rek nit ku nekk rek nga def ko mais amour day fajj manam sex day fajj day wàññi stress day dindi stress bu bari ci nit muy goor ak jigen motax ci suñu dekk yi fi ñuy na jëflante dafa bax waye nak wuti len jëkkeur pour def ko newuñu len soit ngeen am jëkkeur di ndialo ci bureau ministry wala amana sax amu len who knows ngeen dem di fa ndialo di fa jël khalisu illegal ñu len di def naka sudul te yow dinañu ubbi say dossier yow dinañu commencé xool say dossier ndax li ngay sa gam làmmiñ gii nii ni taat bu yolom xam naa ne am na loo xam ne ruux lañ la ko waaye dinañu ñëw ci yow incha allahu rabbi nañu continuer déglu ko c'est de bonne guerre entre acteurs politiques on voit la main du loolu wax nañ ko débattre nañ ko nee fii on est dans un régime super hyper présidentiel donc pouvoir président dafa bëri dafa law ci bànqaasu réew mais aussi gis nañ ko au Brésil bi nga xamé né l'opposant bi ñu gimde di pouvoir bi ñu gagné ko élection bi ay partisans am envahir dëkk bi mais moralement mom lañ côté mhm. responsabilité bi aux États-Unis bi ñu envahir Capitole def fa ay manifestations moralement c'est à Trump qu'on a imputé la responsabilité mhm. donc le Sénégal est dans le dans la planète Terre ce n'est pas une exception Vous nga déjà lii moy banditisme d'État sans précédence boo xoolee Donald Trump Amérique yëpp xam nañu liñ koy toppee Donald Trump ay élection daf fi passé ñu daan ko ci ay élection moom Donald Trump mu yëkkati ay kàddu ndeeb ay partisans am nañu envahir yenn institution yi moom moo ko wax ba woote sax presque yenn coup d'état yi moom dafa def euh, meeting bi ba pare jubal loolu lañ ko enquêté def investigation ba trouvé ne mom dafa am loxo ci biir ñu top ko topé la plupart des temps ngeen déglu topé wu ko affaire état bi li ñu envahir Maison Blanche li ñuy Donald Trump moy élection yi mu bëggone falsifier lañ koy topé lu bari élection yi mu bëggone Ils falsifier. ko di wo ay gouverneur rek di wo ay nit chargés des élections ma ma loolu lañu topé Donald Trump donc fenkat bi tay nga ñew tok ci ab télé ay millions de personnes di la setan. ngay fen parce que tout simplement yow da nga am intérêt ci li ngay fen du lu normal Ousmane Sonko ñemewu ko sax yow yeen yobbu élection bay contester ay résultat yeen da ngeen ne mom dafa manta bok ci ay élection té du tay ngeen ko tambali ñom tay la passer à la vitesse supérieure di ko def mais ba ñu commencé kañ Ousmane Sonko élection ban 1900 la xam nga kañ la ma APR commencé à Ousmane Sonko du ça fait trois ans presque trois ans de cela la ma APR boo New York, rek ne leen hein, d'accord ba élection ak jàmm ak Nous ñu ne non Sonko du parce que ils avaient déjà pris cette décision que Ousmane Sonko bu demee ak Macky Sall élection wala ak ku mu mën Sénégal duñu def 3 heures de temps ou compter balab parce que tellement ça sera sanguinaire est-ce que xam ngeen lan motax ñun suñu consul bi jot na ci wéyu bay ñun ne Amérique ndekete ñom ci consulat ba ba xalé yi nee nañu am ay xalé yu fa dem yëngal jaxassé touti ñom ci seen bop ño dem foofu jaxassé kayit yi important yépp pour ragal ndax élection bu mu ñëwé au niveau international bu ñu am ay élection consulat yi lu bari lo leen gis faté ngeen consulat Italie ba vidéo yi nga xamné wa consulat bi ñoo doon sanni kayit ci souf ñom dañu trouver que dans la diaspora Macky Sall il a été tellement humilié que mënu mënatuñu ko soutenir donc dañu bëgg def lépp lu ñu man né nañu ci adina ba élection buy am diaspora bi bum ci bokk Et ils n'ont pas compris que la, la, la popularité de Ousmane Sonko n'est pas limitée de la diaspora. ce que je veux maanaam Ousmane Sonko dóor yi mu leen di dóor bitim réew ba di leen futti def leen taatu neen yaramu neen moo leen jommal léegi ñoom nee nañu à tout prix comme Ousmane Sonko est leen man donc ñoom dinañu def lépp lu ñu man pour exclure ce ci li nga xam ne moom Je suis un élection sénégalais

ci Sénégal te ñun doomu sénégalais ñu nangu ay élection am ci Sénégal bu yeboo ñu xoolaat ñun suñu deret ndax ay doomu yoon lañu walla ay doomu xaraam lañu parce que doomu yoon du nangu nit nekk fekk ko këram di ko néewal doole te yàlla rekk nekk fi te mu nangu ko doomu yoon du nangu loolu ñun war nañoo toog xoolaat suñu bopp Euh, batch Alfal ma xol batch Alfal balen leen ma ma xol touti rek parce que la plupart ñom wa Macky Sall lañu voilà ma bloqué ko voilà. xam nga mu ma dafa am lo yor magal magal gi jall na nga ne magal bu jallé di ñu ko won ak jam ak euh magal jall na soxna bali mbacké Balla Aïcha tojna aduna bi. defe naa loolu ñu bari ci ñun xam nañ ko ñun bari ci ñun aussi xam nañu la nga xam ne loolu la nekkee Touba tey ñu bari ci ñun xam nañu taxawaayam ci politique gu Sénégal ak andam ak Marème Faye Sall waaye am na yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy balayee di ko dajale heure bi jotawul bu jotee incha allahu rabbi dina ñëw ne vous en fait pas jarul yàkkamti waaye dama bëgg ngeen xam ne élection bu amee ci Sénégal te bañ a am ci diaspora bi te Sonko bokku ci ñun senegale yi war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat ñun ndax ñun dagan suñu juddu dagan na walla daganul ñun senegale élection bu amee Sénégal président Ousmane Sonko bokkul ñun war nañu xoolaat suñu bop ñun ndax ñun ay doomu yoon lañu wala ay ram lañu parce que je sais bien que ñi nga xam ñom ñoy organiser élection yi ëppuñ ñu fit ëppuñ du jom te gënuñoo doon sénégalais té je vais vous dire une chose Macky Sall baayam moomul Sénégal bis bu ne ma fatali len ko ñun sénégalais bu élection amé Sénégal ñu né Idrissa sek mo mëna bok sacc bi ñu né Karim wad mëna bok ñu né Khalifa Sall détournement mëna bok ñu né Ousmane Sonko du bok war nañu xolaat suñu bok bu boba nañu génné suñu nationalité yi te bàyyi ko te sànni te bañ a ay sénégalais ndax ñun dañu am fulla am fayda te fulla ak fayda la ñu xamee Macky Sall bu euh teug ay élection Sénégal yi Ousmane Sonko bokul ñun ñëpp nañu dee ñun ñëpp nañu faatu ci diaspora bi ak ci biir Sénégal yëpp parce que bàyyam moomul réew mi ñun nañu am jom xam ngeen li ñu war a def ak niñ ko war a defee muy ci biir senegal ak ci biir diaspora Macky Sall moomul Sénégal te moomul suñu ay institution benn doomu aadama bu ko nangoo yow bu boobaa nga dem defat testu ADN nga xamne soit yow Mauritanie nga sa bay wala yow dal manam deretu sénégalais dawul ci sa yaram tu es métissé de de de je ne sais quoi loolu man ma len ko wax sénégalais bu nangou élection am Sénégal ñun ñuy ay doomu yoon te ay doomu yoon lañu ñu tok ñu né waw écoute Ousmane Sonko bu bokké ñu gagné ko au premier tour je serai le premier à dire que hey Bokna, il a amené ce qu'il a et il a perdu Lolo, je serai d'accord mais quant à élection ñu tëgg ko ci Sénégal ñu sommes Ousmane Sonko du sommes muy doomu Nous Sénégal te constitution est validé mu war Bok. ah dama ne nañu am de nous avons de préparer diaspora surtout on a une grande responsabilité cette jeunesse va venir à bord comprendre les ne moment bu yag. donc noppalu pas ci ñoom mais dinañu jógaat fan nous di ngeen lu ci diaspora bi lay bu diaspora Sénégal Sénégal déglu ñun diaspora bi bu ñu tàmbalee yéen ngeen yeggali ko foofu Macky Sall bu mu ñibbisiwaat Macky Sall bu génnee Sénégal Sonko nekk ci prison boobu ñuy wax ay élection yu mu dul bokk ñun dinañu fexe Macky Sall bu ñëwee fii ñu won ko xal ci biir bët waaye yéen fexe leen ba bu mu ñibbisiwaat ci biir Sénégal incha allahu rabbi fulla mooy jaay Dakar da ngeen am fulla come on man Macky dafa moom nday Sénégal wala baayam daf ko moom tay dama len di jox ben exemple bu ndaw na melni deuk bu nga dem ci deuk bu melni ni Sabadola je vous dis une chose Sabadola laa la wax Sabadola là-bas vers Kédougou vous savez tay bo demé ci deuk bu melni ni Sabadola vous savez combien de sociétés étrangères il y a au Sabadola il y a quarante trois sociétés minières qui exploitent de l'or à Sabadola. 43 sociétés minières ñoo nekk Sabadola. 43 sociétés minières ñoo nekk Sabadola Vous savez 43 sociétés minières il y a une société sénégalaise dem len ngeen euh, def sen beug na ngeen bindal ma ci commentaire yi damay bay ngeen xol ndax xam ngeen tontu bi ya 43 société minière à Sabadola 43 société minière yëpp or lañuy exploiter beug na ngir yalla ngeen bindal ma ci commentaire yi allez me bindalaatal leen ma ci commentaire yi s'il vous quarante trois sociétés minières Sabadola s'il vous plaît partagez len ma ci commentaire ñaata société au Sénégal ma Yen ñep ngi ci commentaire ko vidéo bi koy aimé YouTube mi ngi YouTube normalement mais Facebook bi euh, dafay voilà page yi boo ci boo ci deful activité bu yàgg dafay dafay ralentir amul benn problème nag page bi mi ngi healthy mais boo ci yàggee boo ci gëjee def activité day ralentir voilà ata lu may mu ne moi zéro voilà dama bëgg ngeen bindal ma mu ne je ne suis sûr qu'il n'y a pas plus de trois voilà Amina Diop nee na je suis sûr qu'il n'y pas plus de trois waa bindal leen ma rek ci commentaire yi 43 sociétés mo am Sabadola ñom ñep ñu ngi exploiter imaginel xam ngeen luy société xam ngeen lan moy société moy nga tabax bankas bu mag nga jël ay nit nga jox leen liggéey pour ñu dem di di gas souf ci di génné or manam nonu la or bare ci Sénégal 43 sociétés déggu ma de société 43 sociétés ñoo nekk Sabadola nien fuk ak nient. te société un gramme d'or par jour dundal un kilo peut-être wala deux kilos par jour pour nga gamana fay say employé nga bâtiments, fay bâtiment courant donc dis-toi que au moins lu bon bon bon bon bon 86 kilos d'or par jour dis-toi au minimum au minimum 86 kilos d'or la exploiter 7 dollars par jour au minimum 86 kilos d'or Mali biñu ñu bi Mali légui ñom ñoy transformer sen or bopp dañu def usine di transformer sen or bopp laaj leen seen dollars. Il y a 43 sociétés Manam ñen fukki bànqaas ak juróom ñe ak ak ak ñett ñeent fukk ak ñett ci ay société compagnie yu mag ñoo fa nekk di exploité or bi ñaata société ñoo ci société sénégalaise zéro naada amul benn société boo xam ne waa Sénégal ko moom lépp waa bitim réew ñoo ñëw nee nañu Sénégal réew mu pauvre la nee nañ Sénégal tekkiwul dara waaye juróom-ñeenti société ak juróom ñeent fukk ak ñetti société ñoo nekk ci Sénégal yoo xam ne dañuy exploiter or yépp ay tubaab lañu ay australien ay français ay anglais ak ñoomin seen ñoom rekk a fa nekk ak ay américain waaye sénégalais zéro lii mooy dëgg yaa zéro zéro 43 société ak ay indien 43 sociétés quarante trois ñoo nekk Sabadola y'a zéro merci beaucoup Atta Lounaye tu as gagné zéro société moo nekk Sabadola di société sénégalaise lépp ay waa bitim réew la non Eva Marie Coll sec. non jamais jamais Vous ñu xeexul pour son non Macky Sall bu tojul nangam taanu bunam gi jël ci manque ouf ko ci pomper ko jël affaire dugal ko ci mu Son ko du génn ci prison bi non du fa pour dal yenn mais bu dee yow ni ko bay non on n'a qu'à se man beuguma lu yomb nit bu mu lu nañu nañu kex Sonko buñu kexul du génn donc nañu xeex pour bañ non man sax ma beugul Sonko ñukoy jël noonu rek ne wa waa demal bi non voilà Sonko va rentrer chez toi non jamais on n'a qu'à se battre pour sa libération est-ce que Sonko ci bopam bëgg na lool yeen bëgg ngeen lool l'homme le plus populaire du Sénégal ah voilà mi ngi won prison naka la demee non dañ ko jéggal dañ ko ne rek wa jéggal nañ la ñibbil non jamais on n'a qu'à continuer à se battre et on se bat chaque jour ñu ngi xeex Espagne ñu ngi xeex France ñu ngi xeex Amérique ñu ngi xeex fépp te ñu ngi xeex ci stade yi xeex moom mi ngi am jee xeex moo war a am soxna si nit ñëw kidnappé yow sa jabar dama la jox exemple rek ngeen jëggal ci kàddu yi nag dana ñagas nit ñëw jël sa jabar yóbbu ci biir këram xam nga sa jabar fu mu ne mu koy tëdd bis bu ne nga tok sa kër ah métti na ay waay man may may man koy gañ way ëlëk mu tok rek nela wax jëlatal sa jabar nga jël ko duggal ko sa biir kër yawit mais da ngay dem nga ak mom bu jël sa bakkan mu jël sa bakkan boy jël bakkanam nga jël bakkanam non la wara démé way no non nañ Sonko ah nañu tok ah sét yalla rek wa légui lu défa na non non non yalla yalla bay sa tol nañu continuer xeex gis nga xeex fa ko yaakaarewul fa ngay amee victoire gis nga xeex dëgg dëgg dëgg dëgg fa nga yaakaaree ne fa nga jeexalee tak fa ngay gañee xeex bi dama leen di jox exemple course marathon course marathon déglu leen ma de course mooy course yooyu nga xam ne gars yi dañuy daw vingt à vingt six kilomètres di daw rek këŋ est-ce que xam nga bi ngay courses course bi ñaata doole tu étais plus puissant qu'un lion est-ce que xam nga booy les course bi nooy mel da ngay daanu la plupart à la ligne finale da ngay daanu ñenn ñi dañuy xam duñu mënati dem parce que fa nga sonne fa ngay gagné course bi donc les marathon la nañu on va continuer à nous battre et parfois psychologiquement tu penses que tu as perdu ce combat. Mais en réalité, tu l'as gagné. Ce combat, nous l'avons gagné à l'avance. On a gagné ce combat. Parce que, écoute, y manipulation lañ fi def ma jox leen exemple yu ndaw rek mandat d'arrêt international laa am fi may wax ak yéen nii Amérique fi ne nañ leen police ak may wër wala dañ may japp dañ may tej kaso ba ci Amérique fi déggoon ngeen ko barki dem te yéen xam ngeen ne wallahi tay la gëna a féroce te tey laa ëpp doole ndax li ñuy waajal Macky Sall pour le 17 le 18 le 19 Amérique nee naa leen bu ñëwee bu ñibbee rek day xaru ci avion bi lay rey boppam je vous le dis ndax li muy bañ yépp dina ko ñam donc attends arrêtez avec ça continuez à résister xool leen xale yi ci stade yi loolu résistance la dañ leen ko tere et ils le font. Sonko Namna la Karla. C'est un combat d'une autre manière. Envergure yu combat bi di jël dafa bari. Mais sëñ bi nañu waxante dëgg. Yéen jigéen ñi wujje xam ngeen li may wax. wujj bu ñëwee ci kër nga koy xeex physiquement di dóoranteeg mom. di dóorante mujj gi bit arrêté mujj gi lan ngeen di def ci souf ngay def ay tapale bu lay jeuker ji lu rafet nga def ci lu ñaaw bu tege ci nam nga xorom ko ba mu upp bu tege ci nam nga kaniko bu defé nga def li loolu yeb combat la et pourtant jeuker ji bu ko ñëwee dañ ah ki manul tok te fek ya fa jaar donc dañu waxante deug façon ni combat dafa bari gis ngeen ba man ngeen tok ci Sénégal jékki-jékki rek gis tuyau boo xam ne xam ngeen ne kell tuyau bi moom mooy jox waa ministère de l'intérieur ñu naan nga def ci ay puub Antoine Diome bu xellee ndox puub lay naan ngeen xam ne ah waaw courant bii de mooy dem pale nga dagg fiil bi nga xam ne pale du am courant nga xam ne antenne bii de moo yor télé parabolique euh, euh, fii wala lële mais c'est ça un combat lii la américain dina gire la woo lii dangeen koy xeex dangeen di continue xeex Macky sàll de tous les bords ci waañ bi ci mbedd mi ci stade yi ci tali yi ci marché yi na serait-ce que ñu jël benn semaine gis nga bu bis bu ñu demee ñoom ba ñu yaakaar ne candidature yaa ngi tege ñun diaspora bi nañu waxtaan ak suñu yaay yi nag jël leen seen kër yi yépp ngeen jox leen lekk yaay denc leen tante denc leen lekk xarit denc leen lekk sœur denc leen lekk ngeen préparé ñun diaspora bi ñu tié suñu poche Nous ñu tié suñu poche pendant une semaine duñu ñu yóbbante Sénégal économie Sénégal bi day rës day rës une catastrophe la pour nous. mais xeex guerre day saf mondial xeex dafa bari facette

on se bat et on continue à se battre Lolo moi xeex voilà donc gars mangi sante ñep di gërem ñep waye bàyyi leen xel ci lima wax té ngeen partager kàllaama yoyu. ngeen fexe Ndeye Fatou ma nek ci Sen TV na fekk bi ngeen neko ñun xam nañu ne caga micro la xam nañu dund ba paré ngeen paré ci lolu dem néwalma euh euh ñaaw euh, dégg nañu ay waxam té mom dina ko wo en personne voilà dégg nañu ay waxam mais il faut qu'ils savent que nous sommes dans un pays où il y a plus de démocratie il y a plus de respect des droits de l'homme donc lepp luñu man pour gagner len ci sen bir xol yi jam ndey seen xol yi paaka dinañ ko def euh foofu Kayz Fof sama frère ajita fay sœur nee na waxal ci Kayz Fof Adjita dama am problème pour wax ci Kayz Fof parce que je ne comprends pas exactement ce qui se passe xam naa ne nag du ñàkk lu ñàkk xorom lañ leen di jàppee te dinañ leen bàyyi ñu ñibbi ndax defe naa dem ci hôtel rek ne Doudou Ka fii la nekk je pense que hôtel bi peut-être moo leen di porter plainte euh, xam nga loolu dafa am ci réew yi yëpp te malheureusement Euh, Lolo bu donc si porter plainte hôtel bi porter plainte dinañ entendre témoins mën nañ la ou quelque chose mais j'en suis sûr et certain que inshallah Rabbi, euh, rabbi dinañ ko mu ñibbi rabbi dinañ Eva Marie sec. nañ ko yobbu fu neex nañ ko neex rek bu leen neexee nañ ko yóbbu ci kaw asamaan si bu ñëwee ñu tot tot ndeyam yóbbu ko Sébikotane bu Amérique amul problème nañ ko yóbbu fu leen neex nous on va continuer à nous battre c'est ce qui est important nañu continuer xeex ce combat n'est pas fait pour euh, durer une semaine ou 10 jours ou 20 jours ou un mois déedéet nañu xeex voilà, je pense que voilà, Baba Ndiaye, c'est juste le problème avec l'hôtel concernant. Voilà, voilà c'est ce que je pense. Je pense que ce ne sera pas du sérieux. Dinañ ko bayyi mu ñibbi inshallah rabbi mais dina faire au moins jot jëm na woté quand même mais jotuma kenn pour mëna am information yo xamné je peux travailler avec et c'est un peu difficile xam nga bo amul ben information pour nga euh, travailler avec mais si c'est une plainte je sais bien, je suis sûr, avec l'hôtel, il sera bientôt libéré, il va aller chez lui. Et quant à Ousmane Sonko aussi, nous continuer le combat. Nous continuer le On n'a qu'à continuer de se battre. Voilà. mbir la dafa a ay tappale yu bari yu rax ci bir maa ngi leen koy wax léegi ku melni soxna Baali daf ci jouer rôle bu ci jàpp Ousmane Sonko soxna Baali ak Marème fay Sall dañ ci jouer rôle bu mag ci jàpp Ousmane Sonko parce que soxna Baali bokk na ci ñi daw ci sëriñ bi pour nelawal xelam pour nelawal xelu Touba pour dalal xelu Touba mu ànd ko ak ñaari nit